et loolu nous tax après nous devons libérer les Sénégalais du stress social pour mobiliser les énergies du grand chantier de développement. grand chantier de développement yi wax nañ ko le Sénégal dafa xat Le Sénégal est ñëw fekk Sénégalais yi dañoo nous concentrer concentré Dakar Dakar 543 km de 0,3 de la superficie de recevoir le plus du quart de la population en 80% de l'activité économique, 70% des véhicules immatriculés et recevoir 1200 camions par jour. Donc Dakar s'étouffe. Il faut libérer Dakar et ouvrir Dakar, tu restes tout Sénégal. Oublie que tu restes Sénégal, moi il y les trois axes que nous avons à partir de Dakar. Ben axe, du Dakar, Fatih Kaola, Yébe Bakidira,

exode de l'a dit, nous bloqué. Et ça permet aujourd'hui, lire au Sénégal, nous l'a Faire aussi, nous sommes là, le la responsabilité du génération du Rabbi, nous sommes. le Sénégal, nous sommes en 2009 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 18 millions d'habitants. 2050, nous sommes 33 millions. 2100, nous sommes 63 millions d'habitants. Et on a 196 000 km.

parce que nous avons voilà, pendant trois mois duñ ko qui même superficie aussi di de war voilà dëkk wax ni diplomasi, wax diplomatie ci tënk di diplomatie bi nga xam ni toogaay bi rafet na waxin bi jekk loolu mooy li ñu tubaab yi mos naxe dana bëgg diplomatie bi nga xam ni réew boo mën a toogal boo mën a waxal que ba intérêt Sénégal ak Sénégalais yi ñu ngi mën ko préserver loolu moom ma gënal toogaay bu rafet ak wax ju jekk président Abdourahmane Diouf da koy wax tout il faut que vraiment suñu Sénégal suñu diplomatie donc une diplomatie gagnante une diplomatie économique et loolu ñu bàyyi ci xel bu renforcer la sécurité n'afte réew bu amul sécurité du accueillir ay investissement yu am doole surtout ay investissement privé il faut que nous ñu aussi renforcer ensuite nous restructurer notre économie mënoo jël économie bi xam tout le temps li tirer le tertiaire alors qu'on est absent à ce niveau on n'a pas de grand champion à ce niveau là réew yi développé

I non, recevoir orientation qui fait dîner, qui kilifa fait aller organisation professionnelle dans le delluwaat ci nous wax leen li ñu tënk bu Nous faire bu nous avons program nous faire programme de un programme des Sénégalais pour les Sénégalais et organiser audience publique il y a ni daan ko def ci zone yi Sénégal nord sud est ouest centre peut-être aussi au niveau de la diaspora diaspora Europe Amérique Océanie et Asie mais également Afrique Donc, il faut présenter nga xam encore une fois di dellu di gërëm sénégalais il y a ni ans, qui fait partie du ci biir Sénégal di dellu di gërëm sénégalais yi nekk bitim réew mais tamit di gërëm sama invité yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk tey gis nañu seen ay témoignages mais loo leen wax ci man jàpp leen ni lu néew la li ma mën a wax ci yéen parce que yéen ñëpp vous êtes de grands hommes d'État ci yàlla jox ci réew yàlla kon bu boobaa Sénégal ñàkkul yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir Sénégal di leen gërëm di leen sant wasalaam Je pense bien qu'on avait ouvert la cérémonie par des prières. Bon, je pense que euh, Amna Solo, voilà, nous, nous, Hein? Ah. félicitations. Yalla yalla def président. Yalla yalla natal Sénégal. En tout cas, un Sénégal, mon avis, est beau à voir.